لله عليه صلاة الله ثم سلامه مع الآل والصحاب الكرام ذوي النما فإن تسألوني عن حبيبي وسيدي فطه حبيب الله ما غير ما وما ووقتي وساعتي صرفت لذكره صلاة ومدحا منه قد سرت جيلما فمر مدركي في اشتياق نبينا فقد رام أمرا مستحالا محرما كمن رام مسك البدر يوما بأصبع ومن رام عود الأمس يوما وعيوما كمن رام درك الوصف عيبا قد أكسروا ألا ليت شيري كيف أحيي عنده kon Cheikh Mahi wàccagul defe naa moom moo des yi nga xam ne ñoom ñoo war a wàcc on aperçoit Mimi Touré Cheikh Mahi ba tey wàccagul ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci biir roppalaan bi ñooy wàcc fi mu nekk nii ñëpp a ngi koy teeru di ko tatagal di ko dalal jàmm ba tey xalif bi wàccagul mu ngi ci biir macha allah Cheikh Mahi Ibrahima Niass mu ngi noonu Cheikh Mahi Ibrahima Niass mu ngi noonu di wàcc ci avion bi mu ngi noonu di wàcc mu ngi noonu di wàcc Cheikh Mahi Ibrahima Niass mu ngi noonu di wàcc Cheikh Mahi Ibrahima Niass mu ngi noonu di wàcc Cheikh Mahi Ibrahima Niass mu ngi noonu di wàcc min zikrihi tiba qablahu ala adamin id kana faran muassala Ibrahima Niass mu ngi noonu ci kanamu oto bi dugg na ci biir ñëpp ngi koy ziyaare di ko tatagal di ko teertu euh, exceptionnel que ça puisse être franchement rien amul lenn lees ci mën a dolli lu dul wax ko ay kàddu jërëjëf Bruno mun nga demee ne ci kanam parce que kenn doyalul ci moom ñëpp ko bëgg a gis. ضياء البدر بدرا مكملا فلولا غلاة الفيل يادا فإنه لبذرات هذا الكون إذ كان مرسلا ولولاه لا أرض حياة بلحظة فحيوا بغير المصطفى البدر عملا waman bi sifatil Mustafa ala kulli fatigué sonn li nga xam ne moom moo di Cheikh Mahi fi mu nekk nii ñëpp ko bëgg a gis nag ñëpp ko bëgg a siyaar ñëpp a ko bëgg a nuyu ñëpp a ko bëgg ok <laughs> man xaw ma bi kañ lañ bëree nii sax nag ah man presse bi dañoo bëri ci diggante bi laa xamul nuñ bëree nii ay eh, presse bi bëri ngeen a ah, finalement.